mbokki Leewtoo ñu ngi leen nuyuwaat baax a baax ñu ngi tey fii ci Medina fii nag mooy def li nga xam ne moom mooy open press am wala bëre ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène junior ma ànd ak Yagmar ci caméra bi na waa Bawol la ngi Yagmar ko ne defoon ne jëm ci waaye xale la c'est que mag euh, kale nu dati ci euh, da daa trompé te xam nga bi ñëwee day ay genn maas gu ñëw benn yoon muy buur sin kewel wuli de ñëpp benn trésor la moo tax waaye xam nga làmm li mu dee moo tax ñu boo gënee fa defa tar waaye tar dewul de en kanamam te bëgg na ko gëm na ko waaw. tolof tolof la rek waaye tardement amul. tardement amul de waaw. mais est-ce que yaakaar nga combat bi na yomb diggante ak ki nga xam mooy Eumeu Sène. non moom boo waxee rek combat mënut a yomb. combat moom lu yomb parce que da ngay def li nga li nga gëm ak li nga xam ngay def dem de ko te gëm naa ne li mu yor xejuma ci moom ndax amul guddi bëccëg nit ñu lépp la ñu war a def nañ ko yàlla rek moo des. dañu gis nga jàpp ne yaa gën a pare Eumeu Sène. ah yaa ko gën a pare nga bëgg a gis naa ko bu baax maa maa gën a pare. c'est sûr maa ko gën a pare. waaye sa mbër daal. non pare na bu baax. tout tout complété li ñuy bokk lépp am nañu am nañu ko. ñu ne fii dañuy lekk te nelaw bu bes ba ñu dem ñu dem da ko ñibbi. ana waa Ndondol dinañ ñëw. ah incha allah. waa Touba Toul. Londior lépp na ñëw. waa Ngogom. ñëpp nañ ñëw ba suñu bopp ñëpp nañ ñëw. boo koy fàllu ngom daañu ñëw ci Ndiak Sarr ci kanam. vraiment laa wax sama doole laa jëkk a yaakaar parce que lamb boo nee lamb da nga naa da ngay entraîné ji yóbbu si ñi nga yaakaar say waajur ñaanal la nga ñëw waaw loolu rek laa yaakaar waaw sama doole ak li ma li nga xamante ni yàlla mooy maye yàlla na ma yàlla may ndam loolu laay ñaan waaw Bour Sine boo xewlee say mbokk wër la anan nga njëkk a yëg waaw di leen sant di leen gërëm sama deret dafa yëngu boo ma xoolee rek xam ne sama yaram dafa tàng te waa ji sama adversaire maa ngi koy ñaanal wér ba suur si yàlla may ma ndam du ma ko may dara man aw ma lu may xaar dañu maa yónni yàkkamti ma taxawaalu waru te pare naa pour lépp nag pare naa pour xeex pare pour bëre parce que bëre door la ñu wax pare naa pour lépp bàyyi du ma bàyyi dara. mais dafa mel ni waa ji da nga koo sóoraale waa ji ngay wax. non waa ji sama adversaire la parce que nit boo jëlee avance am da nga war a da nga war a concentré wu si li nga xamante ni moom la mën ak li mu mën nga nga liggéey si ak say mbokk. boo boo am loo ko corrigé te pare naa xam naa fi ma koy jaar. xam nga fi nga koy jaar lan nga koy yóbbante. fii mu ne nii yóbbante amatu fi pare na dimanche ñëw na ba noppi di ñaan yàlla may ma ndam si kawam rek di nuyu waa medinaa di sant monsieur le maire Bamba Fall mu ñëw jàpp si combat bi waa Réfane gëpp ñu ñëw jàpp si combat bi sama mbokki mbër yi ñëpp. ñu ñëw jàpp si combat bi dooleel ma ma jàpp waaj daan ko jël bu rëy loolu rek laay ñaan. Bour Sine mu amoon ñaari question yu ma la bëggoon posé bu njëkk bi mooy danga nga bëreeg Maama Lamine gis nga li ci xew nga tourné jël Eumeu Sène Junior lan moo moo moo la dugal ci Eumeu Sène Junior ñun ragaluñu loolu parce que boo demee booy jël avance su mbër rek boo xalaatee ne mënoo koo daan doo ko jël man ku ma xalaatul ne mën naa laa daan duma jël sa avance di sant sama doomu ndey bàyyi laat mi ak mbay guy gi ak Talla Sarr gars yi bu ma limee damay juum ñoom Saal Bala gars yi gars yëpp bu ma limee damay juum Ahmed Lagros Issa Diagne Atou gars yi yëpp maa leen di gërëm parce que gis naa seen taxawaay daal ñu dooleel ma te dimanche mooy gën a metti mooy gën a tar nañ ñëw dooleel ma ma jàpp waa ji daan ko jël. bu ne Eumeu Sène Junior daa yokk poids yokk doole. yéen ñaar seen combat dina doon combat bu gaaw. jigéen di ñun ragaluñu loolu. ñun ragaluñu poids bi. dañu ne med med lu mu gën a rëy neexitaan waaw pare nañu. jërëjëf Bour Sine maa lay siyaar bu baax mu daanta sans frontière Bour Sine dama gis ne bii mooy troisième fois ngay dugg géejawaay sa digganteeg Bolo sa digganteeg fisa de ak Eumeu Sène Junior mi nekkoon taay si nga ñibbi ca Géejawaay école de lutte Fadam nga dugg fa biir troisième fois est-ce que dina yomb si yow première question. op na trois te maa ñaan yàlla suturaal ma fi chaque jour dama fa daan génne ndam maa ngi ñaan yàlla mi mën te mën lépp di borom lépp may ma fa ndam si kattanu yàlla. dama gis ne bëre woon na moom duggoon na Bawol bëreeg sa mag Modou Awatine mu am nu mu fa demee woon est-ce que combat bi du revanche si ah mën na nekk rawaas la parce que Modou Awa sama grand la di ko nuyu ab passage di ko sant Modou Awa sunu grand la mais combat bi daal dina metti parce que bu dee man la rek bu arbitre soufflé dañuy bëre man pare naa pour lépp je suis pare. ngeen di bëre ngeen di bëre drapeau koo xamante bi nii référence la ci réew mi promoteur bi ko tëgg tamit du suñu mbokk def lu nekk si làmb Bour Sine lan lay ñaax ay supporteram pour teel a duy stade bi ba mu fees ak non violence. ak lu mën a xew say say say say supporter ànd ak discipline ndax ki nga xam ne moo tëdd moo tëgg daraapo bi. waaw bu loolu weesoo di sant Tafatine sunu grand parce que jàpp na si contact yeeg yëpp di ko sant bu baax a baax a baax waaw. di sant euh, président Macky Sall parce que moom la ñu tuddee drapeau bi drapeau bi dama ko bëgg a indi Medina Rue 9 parce que combat bi le 9 la ñun Rue 9 lañ dëkk ñoo ko moom sunu combat la ñun waa Medina sunu combat la. loolu la